للذي الخمر فرجا لا يبالي سلموا تومي الأحداء الرب مع التجاه ربي باب الله لم يكن مرتجاه asalaamaaleykum mbokk yi topp xibaar 24 TV fépp fu ngeen mënti nekk ci àdduna wargal këpp ñu ngi ko baaxoo di defee tey jii ñu ngi dalal kàngam kilifa dina si ñëw si kanam tuuti depuis Kaolack gi nu nekk mu fas yéene ñëw ak ñun ci li muy yëngu yaakaar naa ni kenn dootu ko présenté waaye nag baax na tamit mu wax ñu mooy kan ndax nit ñi yaakaar naa ni boo leen waxee ñu gën a xam. Sëriñ Matar Penda Si mooy sunu invité yàlla may na ko muy yëngu si wàllub ñaan dañ koy bàyyi mu nuyoo rek ñu soogay ñëw nag si laaj yi sëriñ ma taax bisimilah mina seytaani rajim ay nuyu saabika suriyataha mina seytaani rajim rabbi auzu bika min amasari sayatin wa auzu bika rabbi an yahduruni bisimilahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala wa wa ala wa sahbihi tasliman rabbi israh la sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisanihi yafqahu qawli gannaaw bi ñu mosuloo ci seytaane sant suñ borom bi subhaanahu wa taala julli ci yeneen bu tedd bi sallallahu alayhi wa sant suñuy waajur yi sant sëñ sëriñ Seexuna Ahmadul Xadim sëriñ Maxtaar Penda Si bokk ci bokk ci njabootu Demba Bunna Si bu may wax njabootu Demba Bunna Si mooy Demba Bunna la Maxtaar Penda Si sëñ Mor Xari Si ak sëñ Malick Bassine waaw ma bokk ci njaboot googu sëñ Mor Khady Seck sëñ Malick Bassine ci njaboot googu laa bokk njaboot googu nag mooy njabootu maam Mokhtar Penda mooy njabootu Demba Bunna man sëñ Mor Khady Seck sëñ Malick Bassine mooy maam Mokhtar Penda si mooy Demba Bunna ma bokk ci njaboot googu nag mm, ñu may wax sëriñ Mokhtar Penda si borom sangat yi. jërëjëf sëñ Matar ni nga ko junjee ku dégg Malick sëñ Malick Bassine si xam na njaboot gu mag la xam mooy ñu toppoon sëriñ Touba dellu si waatal si sa maam. waaw sama maam yooyu sëñ Mor Xarit si ak sëñ Moxtaar ak euh, si sëñ ma sëñ Mor Xarit si ak sëñ Malick Bassine la waaw ñoom ñooy samay maam sëñ Mor a jur sama waajur waaw. ku leen dégg xam ne alxuraan seen mbir la. waaw loolu lu wér la alxuraan suñu mbir la ñooy ñaar ñoo xam ne nii ay jàmbaari Serigne Touba la ñu wala ay soldaari Serigne Touba la ñu sëñ Mor Xarit si sëñ Malick Bassine sëñ Moxtaar Penda si di seen waajur sëñ Moxtaar Penda si Demba Buna. waa ñooñu say maam ñooñu nag alxuraan ci ñoom la fekk baax njabootu sëriñ Tuubaa gépp ci ñi sant si lañ jàngal alxuraan ci njabootu sëñ Maodo Xaadim ak sëñ Maali Baasin lañ jàngal alxuraan ma bokk foofu mm, li ñuy wax maanaam tarbiyu it ma def ko ci doomi soxna yi di xam lépp ma xam ko jàng alxuraan jàng téere xam-xam yi jàng lépp émission bi duñ ko tàmbali te waxooñu foo jàngi xam nga tamit la fi am baax ñu mën a xam yow yaay kan ak sa jaar-jaar ba soog a soog a ñëw nag si say mënin parce que mbir ba nga koy def day fekk nga xam ko sëñ Matar Penda Sy fan la jànge waaw loolu nga wax dëgg leen lu am solo la nga wax sax ndax jaar-jaar daa solo ndax ci wàllu zaahir yi rek li nit ñi def rek léeg nga gis ko naan dama am appat yegg fi ma yegg si ci arène bi rawatina nag ngay doomi soxna di doon doomi daara kon booy def émission jaadu na comme ni ñuy yëngoo li nga wax li am solo la dinaa ci tontu bu baax a baax. Mm-hmm. waaw gannaaw bi mënoon naa yem nag samay maam yi ma wax yëpp ñooy sama maam rek ma yem fa déedéet waaye teewut ba mu nekkee samay maam ak samay waajur yëpp damaa dem jàngi jàngi alxuraan waaye nag sama maam ji jur sama waajur bu jigéen moom ma jàngal alxuraan moom ma a dal baasin jàng ci moom ba ma wàcc sama maam boobu euh, euh, sa muqaddam la mu Cheikh Sida Jamari si moom ma jàngal alxuraan mu wàcc bi mu la lewee nag ma dem njaareem jur benn laa yeggalee sama alxuraan nekk fa lu yàgg jàng naa fa yenn téere xam-xam jugee fa dem Touba googu jàng fa téere xam-xam yu bari ba ma noppee ci yooyu nag mu ñëwaat sama waajur nekk ci moom di kat liggéeyal ci wàllu lasaraar di bind may xam lu bare dafa ma woon daan jàng yi yëpp tam gëstu woon naa fa lasaraar boo lekk nag ndoon na gi nga ko doon ne nag teg ci nag ma doon na ko ba pare jàng ko nag wëlbatiwaat nekkaat sama waajur di tarbiyu ci moom di tarbiyu ci moom bu baax a baax ba ni mu jugee la newoon ci moom yëpp mu nekk ci man tey. sa waajur li daan yëngu li nga yëngu ñaan. sama waajur daan ñaan bu baax. nekkoon doomi wàlliwu mm-hmm. ndax sëñ Mor Khary Seye baayam. Seydina Ousmane si mooy sama waajur sëñ Mor Khary Seye baayam daan tukki fu nekk ci àddina bi nag fees dell xam-xam baatin waaw man ko lool nag ñëpp xaman ko ci fépp nag ci Kaolack gi ak dëkk yëpp. kookoy sama waajur ba ma fa ba ma nekkee ci moom ba ni mu làqoon nag la newoon ci moom lépp nekk ci man nag. waaye wax ne am nga secret yu jël ci moom. waaye nag li newoon ci moom lépp. moo nekk ci man. Hmm. secret yu bari yëpp mu ci man ndax lépp la ma xamaloon bi muy dund. lépp la ma xamaloon ma xam lépp waaye yemuma fa nag dem laa xool yemuma fa yemuma fa mënoon naa yem foofu rek waaye dama ko fee tegaat gëstu. gëstu bi nag moom damaa dugg ci dëkk yu bari ndax dama daan tukki ci dëkk yu bari ci Afrique. Hmm. boo fa tukkiwaan tukki sëriñ ba pare di gëstuwaale dem ci seen àll yi. lu mel daanaa ay Côte d'Ivoire ak Burkina Faso Guinée Bissau gi Niger. benn Togo. Hmm. fu ne dama fa daan dem. di dem ci village yi di gëstu xam-xam bari xam-xam lépp laa gëstu xam-xam bu baatin dama ko xam bu baax xam-xam bu ñuul yi dama ko xam bu baax a baax. Hmm. waaw bu ko defee nag dem naa Mauritanie Mauritanie dama fay tukki miin naa fa lool. boo fa tukkiwaan itam dama daan dem tukki tukki sëriñ ba pare wëlbati ko di dem ci baadiye baadiye yi nga xam ne nii ay góor yàllaa fa newoon te seen i sëta fa nekk seen i setaat dama fa gëstu fa ay turu yàlla gëstu fa lu bari ci baadiye yi nekk Mauritanie bari dama fa daan ci sërif ci naar yi booleel loolu na ñëw lépp ak li ma gëstu lépp ak li ma waajur yu bàyyi boo bàyyee lépp ma boole lépp dëxëñ nag yor ko toog toog ci nag maa ngi maa ci toog di ci liggéey lu si gàttal daal ku la dégg nga wax dina xam ni mbir mi nekkul loo xam te ni dafa xew rek dañoo bokk ci comme ni ñu koy defee maanaam réerandoo gi boolewu la ci yow da nga am loo opté muy ñaan nga dond ko mu jar la nga gëstu wóor ay diwaan ñëw boo si bëgg si jàppale jaam yi tey li xew mën nañu wax ni ku jóg da ngay ñaan loolu tax ñoo jóg sax waaye dama bëgg rek ñu bañ laa boole catégoriser la si ñi nga xamante ni xëy na dañu jàpp ni dañuy naxaate parce que di nga yàgg dégg nit naan diw dama ko gis si internet bi contacté ko ñaan ñaanal ma wax ma lii après laa gëj a dégg te envoyé naa ko sama xaalis sëñ bi kan ma war a ñaan ak ñaan ak ñaan mooy lan ak yan charte lañ mooy tax maanaam sa ñaan pour nga mën a gindi askan wi. waaw ñaan moom loo doonul taalibeem moo la doon sëriñam ku bëgg nekk baxal da ngay doon dàll ni ko olof waxee man nee naa la lam mënoon naa yem ne samay maam di woy samay maam di woy samay maam rek comme ni ma ko waxee woon rek yem fa déedéet damaa jàngi alxuraan damay wax toujours dama koy wax ñu bëree bëri alxuraan mooy baasu lasraar li wax tabax fondation alxuraan mooy baasu lasaraar ñun bañ jàngee alxuraan xam nañ war a xam pare yemuñ ca dañoo jàng sax dugguñ ci jum ci lasaraar dañoo jàng feq li nga xam ni ne maanaam suñu wàllu diine da nga ko war a xam ci sa diggante sa borom ci diine muy fiq téere yu mel ne ay risaala ak muqaddimatul hisiya ak asmaawi ak misbaahu saalik ak jàng naxu dégg nga jàng luxa xam yooyu ba pare nag door a dugg nag ci wàllu ñaan gi. lasraar mooy lan waaw lasraar mooy bu ñu koy wax nag mooy ñaan comme nii ñuy def nii ñaan yi mooy ñaan ñaan gi ñuy def ñaan ñaan lasraar nag moom comme ni nga ko waxee woon noonu rek nit ñi bokkuñ jam kenn ku ne yaa ngi ciy dugg. waaw comme ni nga ko waxee kenn ku ne yaa ngi ciy dugg waaye nit ñi bokkuñ. ay charte la yooyu topp ay charte la ndax man mënoon naa tëb tëb rek yor samay kamatara rek maanaam bu ma waxee kamatara yi sama ñeenti fooy ak sama juróomi fooy rek daa di commencé am lu may wooteeg yooyu déedéet defuma ko ba ma ba ba ma ba ma jàngee yi ma jàng yëpp ba pare ni ma la ko leeralee. ñëw ci wetu jur wi ba mu mu fi jiyee ko la la nekkoon ci moom yëpp nekk ci man bàyyee ma lépp mënoon naa ci ayam dama dama ko fay teg gëstu ji. dugg ci àll bi xam nga kuy dem ci àll bi di gëstu. moo xam ne àll bi nga daan dem sax jëlee naa àll Sénégal waaye àll Afrique bii. fu ne nga fay dugg di gëstu kooku xam nga ne moom ne ko ci doxoo ci caaxaan nga nga jël xam loolu yëpp nag boole ko ñëw toog ci di ci liggéey man nag ma nekk koo xamante nii man damaa yor lu leer nañ lu wóor lu wér man ay caaxaan xaw ma ko sax ndax fi ma bokk tax mm-hmm. ba pare maanaam sax yenn yi mënu ma ko man ku la gisee fi nga waaw dëkke xam ne soxla woo maanaam li naan dóor dóor kenn ndax man nga sa bopp macha allah macha allah maa ngi sant yàlla bu baax duñ la cat waaye bi wax ñun li ñu gis. dëgg la ku la gis dal gi. Mm. ak taalibe gi ak yar gi. Mm. ak maanu gi boole kook sell gi qualité gi. dina xam ne yow li nga def li nga ja da ngay jàppale maanaam jaam yi yow orthodoxe yi maanaam li fi mag yi bàyyi woon loolu ngay saxal mag ñi daaw ñëwoon dem naan mën naa mën naa nit ñoo leen xool xemem leen waaye fi jamono toll nag comme ñu naan mën naa mën naa dem nañu ba nëbb ñu ñi mën te kenn mu leen fekki yéen it fa ngeen woon seen bopp ñu mu leen xam waaye li nga def nii sax yow de bëggoo ko woon ñu ñoo la ko forcé parce que dañu la dañu la signalé ñu ñëw fekk la fi ba Kaolack la deuxième ma def la ce qui veut dire que ni kon yow ku sérieux nga ku sérieux nga ku la fekk fii xam ni li nga def man li ngay li ngay li ngay def moom fàttaliwoo ko loolu moom seede bi noonu def la léegi ñaan gi nekkoon sëñ bi. waaw léegi nag bu ko defee nag mooy comme ni nga ko waxee noonu dimbale jaam yi dañoo tax a jug bu baax sax waaw dimbali jaam yi ñoo tax a jug te damay wax toujours maanaam dañoo dañoo dañoo am lu ñu yàlla dimbalee mooy hmm. damay wax toujours mag ñi li ñu la bàyyee say waajur ak say maam li ñu la bàyyee soo ko tegee ci siraatal mustaqim teg ko ci ak njub ñoom lañ fi bàyyi day ñoŋ ba tey du mës a du fi mës a jógee hmm. su fekkee da ko yor nag di ci def naka su du noonu tappale hmm. jàppale ne yoratoo lenn baatin ay fooy kese nga yore ñun moo tax nag lañ ñoom lañ newoon nag ñun dañ caa teg suñu tànk dégg nga moom ci lañ nekk boobu ba tey nag di ci di ci di ci di ci liggéey léeg-léeg tamit tam fépp fu waay nekk ci àddina bi tam boo ñu soxlaa boo dikkee ñun fu ñun daw duñ daw kenn suñ téléphone yi duñ ko fay nit mën naa jógee ko fu ne na dama laa bëgg na seet si sa kër man maa ngi Kaolack diwaanu Kaolack Touba Ndorong Ocass waaye nag maanaam fi nit ñi foo bëgg a jógee koo ñëw boo ñëwee mën a la bisimilah. Mm-hmm. wan na la tin boo ñëwee fii ma nekk tam mooy sama makkaan waaw bu ko defee boo ñëwee ñi jëflante ci jàppale doomu aadama moo ñu tax te boo gisee sax li ma ci dolliwaat mooy comme li nga wax nii man yi sax daaw ma ko woon bëgg def comme ni nga ko waxee noonu mhm. moo am lu laaj ndax nit ñi lay comme média lañ dund moom lañ gis moom lañ gëm dañu mhm. bëgg kii fi mu féetee bu yu mel ñu mën koo seete yooyu mun ñoo jàppale ndax xëy na tamit am na ci côté boo xam ne boo toogee sa ruq te kenn gisu la te nit ñi comme média lañ gëm moo waral sax ñi def yi très bien waaye ñun li ñu yor moom fortaatuwuñu ko fortaatuwuñ ko te itam nit ñi bokkuñu ndax man li ma la wax nii yëpp jaar-jaar yi ma jaar rek dang maanaam maanaam maanaam mënoon naa jaar fenn fu ndaw rek ñëw installé nekk samay affaire waaye déedéet dama dama ay maam jullee ju meññee ma ay maam yëpp di ay wàlliwu ma bokk ñëpp fi ma bokk ñëpp xam ko ci àdduna bi Ah, nekk nekk nekk ay kilifa yu mag maanaam bokk ci njabootu sëñ Mor Khady si sëñ Malick Bassine si ñëpp xam leen Mame Makhtar Pend si nga bokkaat foofa muy waajur sëñ Mor sëñ Malick nga xam ne nga xam ne ne yow man su nit indee kaas daf ci ndox sax boo ma ko tuflilee da ciy gis ay tawfeex ak ijaaba mbaat muti bu suuf hmm. waxuma laa nag ba ma jàngee yi ma war a jàng dam fépp nag gëstu ñëw nag daa toog kon ñun ci lu leer nañ ñi toog yor lu wóor lu wér waaw loolu benn présentation tombeel nag sëñ bi waaw sëñ bi maa ngi naan jamono ji nit ñi dañuy bëgg nag seen mbir dox loolu doo nga leen tax a jox parce que kuy dund tamit foo nga def yëfu kuy dund te mbir yi ay secret la yoo xamante ni yàlla ñu ngi ko jox mooy seen genre yi xam ngeen nag nan nan lañ koy débloqué ba seen a dox euh, bayra nit ñi bëgg nañ ko loolu muy kii commerce muy kii commerce bi mën a doon nag kii ambulant ba kii dem ca kaw parce que ku am marchandise da ngay bëgg mu jar ku sa place également looy mënta jaay da ngay bëgg ñu fekk la fa kuy yëngu si activité bu mën a doon da ngay bëgg tamit ñu jublu la euh, tey yow sa bayre lan mooy secret ak noo koy defee ak yan durée nga lay am pour mbir mi mën a jàpp parce que tamit mu gaaw jàpp da si am solo. xam nga nit ñi léeg nga gis ko naan damaa dem ci sëriñ ñaan lu ba sonn gisuma dara mooy li ma la doon wax léegi rek suñ la bàyyee ay secret yu wóor ay ndono. Mm-hmm. te nga teg ko ci yoon rek du koo ñaanal mu gis ko. Mm-hmm. ñu nag sant nañu yàlla bu baax a baax ndax li ko def mooy ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi góorgóorlu bu baax ci sellte di liggéey tudd yàlla bu baax a baax. waaw te lii ñu yor itam muy lu leer lu wóor lu wér moo tax ku ñu defal da koy gis man ñi may ñaanal bari na ñi ma yàlla di booleel ñu may ni jëflante ak ñoom ku ma defal nga gis waaw loolu nag moom moom mi ngi fi itam. bayere yi ngay wax na yàlla dimbale nañ ci ndax dañoo gëstu lépp nag garab dañ ko gëstu muy sajara mooy garab mhm. xam-xamu garab xelmu sajara dañ ko gëstu xam ko xam garab bu nekk lan moo ko tax a jóg xam garab bu nekk ak tur yàlla ba mu composé la mhm. nga mën koo liggéeyal nit ki bayre ah, yooyu waaw ba garab bu nekk rek dafa am la ko tax a jóg waaw dama garab man garab lu bépp laa ciy def dogmal foofu ñu lay duppee borom sangat yi waaw sëñ Matar Penda si borom sangat yi kon yow say mbir ay sangat la waaw samay mbir yëpp ay sangat la sangat yi may def mooy alxuraan ak baatin mhm. ak tur yàlla la ñuy liggéey ñi xam ci lu bari nag ci sa turu yàlla ñu xam ci lu bari gëstoo ko fu nekk nag ak li ñu bàyyee léegi nag moom la booleek booleeg euh, baatin bi ak liggéey ko ak boole ko garab yi ñu ciy boole moo tax man samay sangan moom dama lay jox rek nga sangu rek daal di saa sa bopp nga gis sa bopp da ngay sangu rek di gis sa bopp bi may sangal na ma defal na ma waaye gisuma dara déedéet maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu commerce yi euh, bokk na si ñi yëngu si wàllu immobilier jaay kër ak yoonu mel euh, ak wàllu parking de voiture yi ñi yëngu si wàllu yëngu tey musiciens yeeg ak waykat yi ak commerce bu mu mën a doon ah ci kaw ba si suuf footballeur yeeg xam nga ak ñi bëgg ay contrat ak agent yeeg agent agent footballeur yi euh, bokk na si tamit ñi nga xamante ni tamit dañuy yor ay salon ñi di jaay daal di business étape bu mu mën doon rek ñuy tukkee ñëw yow ñoo ñëpp seen mbir mën nga ko gérer. waaw ñoo ñëpp <clears throat> ñu ngi lim ñëpp seen mbir mën naa ko gérer ñooñu moom sangat yi may def. waaw ku fi dikk ci man ma jox la sangat yi ak foo mën a nekk ci àdduna bi ci Sénégal mën naa la ko yónnee ci àdduna bi ak a doon rek yëpp. sangat yi tubaarkàlla boo dee da ngay yëngu ci commerce moo xam hmm. import export ngay def di dama ko dikk wala nga nga yor say boutique grossiste magasin wala quincaillerie euh, nga yor loo lépp loo xam ne yaa ngi ciy yëngu ci commerce moo xam li ñuy lekk ngay euh, jaay wala li ñu sol ngay jaay ak lu mën a doon rek euh, di ci yëngu ci commerce bayre yi ñu lay defal tubaarkàlla moo xam immobilier ngay yëngu ci wàllu tabax jaay ay kër ak yooyu yëpp te bëgg ci bari wala parking oto nga yore bëgg bayre bu yéeme sangat yi may def képp ku ñëw jël si fi sangat yi ma jox la ay sangati traitement ngay sangoo ko sooy sangoo da ngay gis sa bopp baax baax a baax bu dee ubbi ko rek nga bëgg sa wàllu wërsëg sa lépp mm-hmm. dox war kàlla da nga ciy gis sa bopp bu baax baax loolu maa la koy seeral di la ko garanti loolu garanti la waaw loolu garanti la maa la koy seeral di la ko garanti la bu dee da ngay yëngu ci wàllu folklore da ngay tagg nabien bi kat yent bi sa ah, ñoom dañuy teewoo yooyu waa tàggkat yent bi wala wala wala ngay ab musicien musicien wala ngay tàggat yéen tamit. waaw ñu bëgg si daal fës rek. waaw bëgg a fës. seen domaine wootee mbooloo mu bari spectacle fës dell. bayre sangat yi nga xam ne moom laay def te may koy dàkkantele Serigne Makhtar Pend si borom sangat yi sangat ñu jox la ko jox la traitement sangat yi na nii ngay sangoo nii ngay nii ngay nii ngay def soob yàlla ci immédiatement da ngay gis sa bopp dem nag ba parce que kii ba ëpp moom cat rek waaw bu fekkee ne bu fekkee ne même da ngay yëngu ci football itam bëgg signé ay contrat Europe ak yooyu wala sa contrat ba nga ne nga ngaa bëgg mu yokkaat wala ngay ab koo xam ne ngay jaay ay joueur ak yu demee na yëngu ci wàllu woo da agent ni ñu sa liggéey dox ci lépp rek wala ngay doon koo xam ne ni businessman nga <coughs> wala ngay ko xam ne ni opérateur économique nga sa lépp di dox yaa ngi business di dem entre réew réew wala biir Sénégal gi yëpp bëgg say mbir dox ci lépp rek sangat yi nga xam ne ni moom laay def muy turu yàlla yu ñuy liggéey boole ko baatin mu nga xam ne ni mooy cosaan la yëfi ma ngi sangat yaa ngi fii képp koo xam ne ñëw nga bu ñu la ko joxee jox la traitement yi nga sangoo daa ngi sa bopp bu baax baax da ngay dikk di dikkaat di indi ñëw ñoo bëgg indi indi indi leen yooyu yëpp dañ koy dañ nga leen aarale aussi maa ngi la koy wax léegi maanaam sangat day ànd ak aar karange waaw am na ci sangat yi bu ma la koy jox dafa traitement lay doon hmm. day am yoo xam ne ne bala ngay sangoo sangoot gu mag gi dafa am bu ma lay jox bi njëkk jox bépp loo xam ne ni gàllankoor mi woon sa yaram da koy dindi ci lu gaaw da nga yëg ni sentir yow bi ma la ko joxee sax am na lu lu lu looy sentir sa yaram maanaam bu dee ay cat moo newoon sa yaram bi làmmiñ yi ak i gàllankoor wala ay def-def ak liggéey yooyu mm. dafa am lu ma lay njëkk a jox nga koy sangoor boo ko sangoo lépp lu ne sa yaram bi lay dañ ma door laa joxaat yi ci des nag yi ci des nag mooy traitement yi nga koy sangoo duñ dawal tuuti nga gis say mbir day ubbeeku dox lépp loo daan yaakaar muy tas yaakaar mu yàkkeeku lépp loo yaakaar day dox projet boo si ndax bayra day ànd xaalis bu baax sax kay bayre yi may defar day ànd xaalis nee naa la damaa xam garab man sa jara dama ko xamee ma sa mm-hmm. sama xam-xamu sama garab yi may yoreeg sama sungufu bayre yeeg garab yi yëpp mm-hmm. saalum laa koy wutee te saalum gee ma koy wutee samay dëkki maam lañ fa laay dem garab gu nekk damay dem ci àll bi xam garab gi lan la ma soxla la ma ca soxla jël ko lépp laay laay def garab yooyu laay jël boole ko liggéey ko mhm. boole ko baatin bi may liggéey nii muy yu am solo léegi nag loolu bayra la ñuy itteewoo ñiy wut xaalis koppar waaye ñiy lijjanti nag waaw bay bayra bi bi may defar waaw li ñuy wax euh, bayre bu ànd ak fatxu la bayre bu ànd ak ubbeeku ubbeeku waaw ubbeeku ci lu gaaw da ngay am xaalis say mbir day dox nit ñi jublu la nit ñi dañu lay jublu ndax loolu mooy mooy mooy mooy bayre bi ndax bayre tey jii boo ko amee euh, te te te nit ñi jublawuñ la wala li ngay yëngu nangam nangam doxut na du kiiwul ah, loolu waaw amul sax moo tax nag bañ naa ko sax baa ne ku may njëkk a kii wax naa la léegi nag ku may njëkk a kiyal dafa am lu ma lay njëkk jox mm-hmm. na nga njëkk koo sangoo boo sangoo ba pare nag ma door laa joxaat yeneen yi ma lay jox nag fekk nag léegi la newoon ci sa yaram li nga njëkk laal nag moom la newoon sa yaram moo koy dindi ba set léegi ma jox la yi ma lay jox nag su ko defee nag da ngay ubbeeku ci lépp dangay sa mbir doy dox sa liggéey dana dox nga am xaalis am bayre nit ñi dikkal la boo dee da ngay voyage si import export loo am ci bagage day jeex sa lépp dox ak marketing booy yëngu. très bien société sax boo ko yoree bëgg société bi dox. wala nga am ay partenaires ay européens yooyu nga xam ne ci yooyu nga yëngu loolu tam boo ñëwee ñu liggéeyal la ci lu rëy lu rëy rëy ko defee say mbir yëpp dox. dañuy yëngu itam ci cruise. Hmm. dañuy liggéey cruise. cruise ah waaw dañuy liggéey bokkul ak sangat waaw bokkul ak sangat yi. tey jii nii mën naa toll fa la ci àll ba foo mën a nekk rek ci àdduna ah. bi. nga woo ma wax ma sama problème wala wax ma ne ah nanga ak nangam ma toog defal la jotaay kurus xalwa dama koy def. ah loolu mooy waaw mooy xalwatu bu leer naññ. Ah? nga xam ne nii waajur bi moo ma ko joxoon bu wér waaw ah, ah, nga koy gis ba mu baa saratan yaa directement dañ la koy dóoral defal la li ñu lay defal la aaju bi balaa mat 24 heures nga woo ma na ma sa mbir mbir mi ma la doon ñaanloo sëñ bi faju na loolu bu leer nañ loolu du mbir mu yomb moom du mbir mu yomb pour ponkali la moom bu ñu nekk ci jafe-jafe ku nekk ci jafe-jafe ak ku bëgg ndombal tànk. waaw wala nga ne ci poste. wala nga bëgg maanaam dañ daa jële ci benn poste ba nga nekk. wala lu mën a doon. ci yu mel noonu ñu xaalis ñu war leen ñu war leen saytu audité leen. waaw xam nga loolu day am nga yor xaalis. ñu war laa tapp ci alal julul jeex ak yooyu yëpp. dañuy wuti ay sëriñ waaw yooyu yëpp nag moo ko tax a jóg yooyu yëpp moo ko tax a jóg yooyu yëpp nag nga ni xaaral def pour tëj gémmiñu gars yi waaw loolu yëpp nag moo ko tax a jóg problème boo mën a am rek nga wax ma problème bu mën a doon rek même ku la yoral bor bi gis ko xam ne la yoral ay millions yu bare bare mën na ko fay mhm. ngay dem ak moom ay yoon yooyu mun a fexe ba fay law a gaaw bu ma gën a gaaw waa ah, sëñ bi de diw moom moom diw diw wax ma turam ak santam ak yëpp dafa maa yoral nangami million mun ma fexe ba ba tey ay ati at maa ngi ciy topp mun ma cee fexe ba jot ko ba jot ci xaalis bi dem ay yoon waaye mun maa fexe ba jot lii daal mooy soxla si bëgg nga liggéeyal ma ko mu xaju ma ma liggéeyal la ko bu ma la ko liggéeyalee diir bu gàtt vingt-quatre heures ba diir bu gàtt ñaari fan ñetti fan moom moom balaa am jàmm dalay dalay jox xaalis bi. balaa bëgg a falu sax moom bu la sa yàlla def si jàmm. pal am pal. pal gi noonu am pal masalan tey daa ah, man sëñ bi damaa bëgg fu ma fal pal da laa bëgg damaa bëgg sama garaan àgg fen fépp moo xam da ngay yëngu ci om de tenue bu mën a doon tam wala siwil bu mën a doon. Mhm. bëgg falo lu mën a doon rek ndombal tànk bu mën a doon. wax ma tam moom tam loolu tam ci kurus la mun na laa jox sangat gi nga sangoo waaye ñu def la kurus. waaw dañ koy boole sax boobu ma gën a gaawati nag da ngay ñëw ñu jox la traitement sangat gi nga sangoo ma defal jotaay kurus ay mbir la de sëñ bi parce que président bu bees bi rek tax na ma gën a xam ni yàlla li mu bu woon ba léegi ñu ko joxee nii parce que boo xoolee sëriñ daara yi aaloon nañ fi demal nañ ba jàpp ni yelwaan bi këpp na ñu koy jàppale ñu ñun suñuy course lañu yaakaar waaye boo xoolee yelwaan ni dafa ko dem ba këpp tourné <laughs> nga xam ne dafa jóge prison <laughs> ñëw nekk njiitu réew man ba man ba loolu amee ñi ngi naan peuple bi dëgg la ñi naan mais man sama xel fu mu mën a dem fa la dem si sëriñ daara yi. Ah, ñi ñu defoon benn coalition. jóg ni parce que xam nga man. Ah, xam naa lépp waaw wax loolu ah, man foofu la sama xel demee ak li ngay wax dafa méngoo dafa méngoo parce que. Mm. maanaam da ngay gis ni ko xeeb doo ko sax faale. mais ma nga yor armam boo xamante ni moo gën a fatal fuuf. ay verdict tribunal ak moo gën a fatal fuuf. pistolet ak yeneen ak ay chef de force de l'ordre ak mbirum yàlla daal la xam nga moo dëggal la wér na wér na xam nga baatin du caaxaan waaw la yàlla may woon du fi jug mukk hmm. mooy li ma lay wax rek ñun suñ maam yi muy samay maam man sama bopp laay wax man samay maam dañoo liggéey yàlla suñ borom bi subhanahu wa taala ba mu gërëm leen ndax boo xoolee sëñ Mor Khady Seck maali Malick Bassine seen waajur rek sëñ Makhtar Pend si kooku borom jamono jamono ci moom la feeñoon moom moo ko jëloon jox moo moo moo ko delluwaat sañ tubaa jamono mooy moo moo doonoon borom jamono hmm. moom moo li de li li yàlla def def na ko ci yow ba nopp waaw yow am ndabal fe ndabal xéwal nga koo xam ne foo dem ëllëg dañ dafay fekk waaye toogal fii ci Sénégal moom moo tey Serigne Touba ba jéggaane wuñ Serigne Touba sëñ Maxtaar Pend si moomu hmm. ku yàlla mayoon la ci lu ne damay bañ a guddal ci lu bari ci émission bi hmm. waaye moo jur sëñ wax xali sëñ Maali Basine xam nga léegi nag kon maanaam maanaam maanaam maam yi li ñu fi bawoon ba tey mi ngi fi mi ngi fi waaw maanaam nit ñi dañoo wutee hmm. nit ñi nañ wute suñ borom sàkkee wutee yu bari moo am léegi nag ñun nga ay doomi daara doon baram seti wàlliwu doon baram doon doomi daara am xam-xam jàng ko li fi newoon du fi jug mu ko baatin kese fi nekk baatin boo ko xamee boo nee nee boo lu ay maam meññee nga bokk fi nga ba bokk sell jàng xam li ngay def di liggéey turu yàlla foo toll di jàng alxuraan di mhm. liggéey ci baatin loo ñaan mu nangu waaw ndax li ko def ne mooy damir gi deret yi ne ci yow a tax li mag mag ñi li ñu waaw waaw ah, ah, waaw loolu loolu fi nekk te loolu ñu ngi ci bu baax sax sànq yaa ngi naan ma bi ñuy def tàmbali euh, euh, ma xool euh, xaatimu Souleymane jaaro yi ak tamit mooy ay mbir yoo xam ne ngeen doo tàggoo mukk ak xaalis xaatimu Souleymane ak sa jaaro yi ngay wax mooy lan. waaw ba pare tam dañu ci bala ñu des waaw danaa ci waaw danaa ci wax xaatimu Souleymane jaaro yi ba pare itam wax loolu moom la wax noonu. comme li nga doon leeral noonu ci. baatin baatin. waaw baatin bi li nga ci doon wax noonu ba tey. Mhm. ki yàlla teg ci bopp réew mi li am yëpp lépp lépp lépp baatin la. baatin la baatin du caaxaan. Mhm. maanaam ko baatin bu ñu koy wax maanaam bu fekkee ne comme li ma la wax léegi rek say maam bàyyi la bàyyi nga ngay caaxaane ci leneen la waaye fekkee ne yow da nga xam li nga xam xam nga nee naa la man li tàmbalee émission bi yëpp bi ñuy tàmbali li ma la wax lépp fi ma jaarak ak. fi ma jàngee ak fi ma gëstoo lépp. boole nag di liggéey baatin baatin du caaxaan ñun nag baatin kese lañ ñi ngi liggéey turu yàlla bu mu mën a doon képp ku ñu wax aajoom bu mu mën a doon mhm. ñu toog liggéeyal la te fi nit ni baatu baatu baatu baatu xalwata boobu ma la doon wax ni ñi ci wax nii xalwata googu caa du caaxaan mhm. ndax loo xam ne ni sa waajuru yëkkati jox la ko wax la ni nga koy liggéeyee du caaxaan ko ah, defee ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni kenn da ko wax sax ci tele yow da ko wax ci vidéo loolu yooyu yëpp mi ngi ci ñun te lépp nag xam la ak jàng moo tax nag nit ñi bokkuñu yam bokkuñu. nit ñi bokkuñu de bu ñu leen internet beeg vidéo yeeg site internet kenn ku ney feeñ. Mhm. di ñaan kenn ku ney feeñ di ñaan. waaye ñun daawuñu woon sàkku lii sax waaye comme jamono moo ko tëddee moo ko laaj. Mhm. faaw ñuy def vidéo yi nit ñi mën ñoo gis. waaye nit ñi xam ne ñun moom li ñu yore tappalaatuñ ko faraatuñ ko. dañ ko jàngi xam ko doon am doon na ko suñu maam yi pare mënoon nañ faa yam yemuñu fa dañ koo jàngiwaat wëlbati xam liggéey li ñuy liggéey ci lépp nag la ñuy def comme ni ma la ko waxee woon ci yëpp baatin mm-hmm. laa yore xaatimu Suleymaan bi dama koy liggéey am benn suuf kon daam bu ndaw waaw bu ma yoo xam ne ni wérul sax wérul waaw am yoo xam ne sax wérul hmm. léeg-léeg nga boo xam ne mën na mën naa damm nit defal la ci dara jaara mu damm maanaam wérul daal boo lam la ci waxoon doo ci gis sa bopp hmm. moo tax bu ma naan la lu wér ñun yëfi mag ñi la yore man yëfi mag ñi laa yore mhm. man secret yi ma yor yëpp ay yëfi mag ñi la wallahi alazim yëfi xale wax ko sim billaahi du yëfi xale bu mhm. paree maanaam itam ku ñuy defal ñun dañuy bëgg maanaam man man ci sama bopp ku dem ñëwaat ku kuy dem day ñëwaat te itam damay bëgg man képp ku may ñaanal ngay gis résultat mhm. man man léeg-léeg sax damay sonn ci nit di ko ñaanal di ko laaj di ko nemmeeku foo toll ak nangam nangam di gis ndax ma ngi gis yi ndam te loolu yombut loolu dama koy def xaatimu Suleymaan bi dama koy defar jaaro la bu may liggéey am gi ma ciy boole ci ay mbiri baatin dugal ko ci jaaro bi képp ku ko takk wàllu wërsëg xéewal dalay yomb xaalis très bien euh, nombo sa nombo kaaraange gi ngay wax toujours nga ni fetal la paakaak jaase kenn du la mën mënal dara dara sax nag ñu ni même pexe yi gaa yi def sax da nombo googu da koy man daal nombo gi daal moom moo lay sécuriser moom nombo gi dalay lay sécuriser sangoor la koo xam ne sama wajur la ko daan liggéey mhm. di ko yóbbu ba Amérique di ko fa joxe di ko jaa di ko jàppale jaam yi ndomba bi boo ko takkee lépp luy wàllu kaaraange suñu borom dala ciy dimbale. ci mhm. fetal paaka ak jaasi ak dugg dugg ci accident. yaa ngi koy liggéey. maa ngi koy liggéey yu leer nañ ñi laa ciy defar te tam boo ko takkee itam foo nekk ci bërëb léeg-léeg nga gis ni di nekk ci bërëbu liggéeykaay yi ñi koy sonal la ka indi li ay jafe-jafe wala ñi koy jéem a xataal ak yu demee noonu. koo boo ko takkee ku lay def loolu lay am jafe-jafe ñoom ñu la ñoom ñu lay bëgg teg jafe-jafe ñoom am jafe waaw ndomba loolu muy ndono loo xam ne ni cosaan la ndax nee naa la waajur bi moo ko daan liggéey ba Amérique sax hmm. waaw di ko fa joxee di ko jël lépp dafa bëri boo ko takkee dara bu la nit tiiree bal lu mën a doon ak arme lu mën a doon du dugg loolu maa ngi koy liggéey mi ngi fii muy bu bu leer dañ nag mos ah, bu baax sax ah? bu baax secret bee fi ne secret mag ñi la secret bi waajur kay daan liggéey di yóbbu lu bëri Amérique di ko yóbbu mi ngi fii ku bëgg ñu defaral la ko loolu moom jar naa daw ba dee bëgg ñu defaral la ko mu essayé la ko yëpp ba mu wér très bien léegi bokk na si tamit euh, képp ku rab sonal wala koo xamante ni euh, maanaam yow da nga koy saafara ak ay tur yàlla rab rab quoi mbirum rab xam nga rab dafa bëri si jamono ji rab dina la téye sa tànk dina sa sa sa lamine rab dina tax euh, yow da ngay yàq rek wala koo dina kooku day yàqule rek am ñoo xam ne bu ñu nekk si kër sax kër ga day maanaam day day day day day dëgër bare na nu muy dikkee daal si biir si biir société bi quoi rab da rab d'abord mooy lan avant ñuy ñëw si doo koy faje waa dafay mën a yàq lu bari rab moom moo doy waar dafa dafa doy waar day lay yàqal ci lu bari yàq sa alal day lay gàllankoor ci sa yaram léeg mm-hmm. lay téye la ci yu bari léegi mun na laa téye ba ci say na nga war a mën a sëyee doo ko mën a sëyee uh-huh. ci feebar ak ci yooyu yëpp rab da koy def léegi ku defee nag ba ci jigéen sax ba jigéen sax da koy téye ba du mën a am doom wala du mën a sëy am fararab fararab nga xam ne nii ku ñëw ba waxtaan ba defee ne noonu la ba nga ne léegi mu day tàkk doo ko gisaat sa am boo ñëwee defee ne noonu la doo ko gisaat sa ku baax koo am doo doo ko gisaat loolu rab a koy def waaw yooyu dama ci liggéey lu leer nañ man nag li may gën a liggéey li tax man mu ku may liggéeyal ci ay rab yooyu mhm. muy dañ ci yow mooy baatin lañu ragal ñoom mm. nga rab dafa ragal baatin dafa ragal baatin waaw dafa ragal baatin tur yàlla mhm. baatin bi ñuy liggéey baatin bi may liggéey man ak tur yàlla yi nga xam ne moom laa koy boole yëpp daf koo ragal fuñ fuñ nekk sax bu ma ko fa liggéey dañu daw waaw fa fuñ nekk ñaar fi ay raba fi nekk wala nangam nangam la ma fay liggéey ci tur yàlla ak alxuraan ja may jàng ak yenn tur yi nga xam ne ni tur yàlla la nga xam ne ay secret la dama mm-hmm. xam ko jorul ma koy gën a kii wax ci vidéo waaye turu yàlla yoo xam ne ay secret yu ma xam te mag ñi bàyyee bàyyiwaloon ma ko ma yor ko maa ngi koy liggéey ci rab ku reb ku yor rab bu mu mën a doon bu ma la ko liggéeyee mu dañ ci yow du fi nekk sax di la wax ak a jadd ngay daanoo ko kadd kadd yooyu. Ah, man dama lay ñëw jox la ay traitement yu wér. looy sangoo la ngay sangu di naan. da ngay sangu di naan ma lay jox ngay sangu di naan ba day dañ ci yow ba seet ba ci day daw. bu nekkee ci yaram day rab bi day daw mooy mooy génn ci yow. waaw mooy mooy génn mooy génn ci yow bu dee itam jigéen joo xam ne fara rab da ko sonal. ku am moom ñëw ku baax ku mu am mu ñëw dem ku baax ku mu am ñooy dem yooyu itam nañ lay defal traitement yi day dañ ci yow. da nga da nga gis say bunt ni muy ubbeekoo Euh, ay ku bëgg xëy xëy par exemple ñuy déposer ay ambassade pour ñu mën leen régulariser ñu dem tukki visa wala ñu nekk Europe bëgg tamit foofu noonu am séjour te ñuy mën a jaabante seen dëkk fii wala ñi nga xamante ni tamit danoo bëgg xëy fii si biim réew am seen ay diplôme am CV bu baax mais dafay taxaw ñi nga xam te ne tamit dëgg la jàng baax na dinañ jàng ba sonn waaye dina am dara ay concours wala ay examen yooyu wala ay xëccoo poste directeur wala poste responsable bu mën a doon ba si ministre yooyu daal xëccoo yooyu moom da nga koy def utum kayit daal. bu leer naa laa coore xëccoo. Mm-hmm. waaw bu fekkee da ngaa jàng ba jeexal yor say say bëgg ci bëgg liggéey soo ñëwee ma indil ma CV yi ma def ci li ma ciy def ba pare. ah CV yi mu ñëw moom. CV yi foog mu ñëw def ci li ma ciy def ba noppi. su ko defee jox la yu ma lay jox nga sangoo. foo bëgg a déposé déposé te foo bëgg déposé boo déposé dañ lay jël ci lu gaaw nag ak liggéey bu mën a doon ak poste boo bëgg nag. moom boo boo boo ko déposé danañ lay dañ lay jël ci lu gaaw bu dee bu dee sax dangaa ngaa ne ci ay concours yeeg yooyu noonu. loolu woo juru itam da ko daan liggéey fi ni may waxee yow nii examen yi bu jotee baccalauréat yi nii ak BFEM yi. waaw li sama waajur daan ci liggéey nii ba maa ngi koy liggéey. big lay doon wala. wala da am looy looy jox big am na boo xam ne big la am na loo xam ne du big secret la dinaa loolu moom sa mbir la moom ah, dinaa examen yi moom ah, xale yi ñi nga ñaanal ñëpp at mi fi nii ren nii loolu moom doy nañ ma ko képp kuy def BFM wala baccalauréat bëgg a gagné hmm. bëgg a génn bañ a génn cinq premiers loolu waajur bi ma ko daan liggéey xam nga man lépp loo xam ne nii moom dañ ko yor rek mooy ndor na moo dafa hmm. am solo ah la xam ne ni waajuree la ko bàyyi ak maam yi mi ngi fi loolu moom mu ngi koy liggéey maa ngi koy liggéey moo ko fi bàyyoon ci ci examen yeeg concours yi ak concours bu mën a doon nag muy concours douane police gendarme concours bu mën a doon mhm. wala ci yenn poste yu mag yi yeeg ba caay jàll yu lu gaaw laa ci yore dañ lay defal rek bu waxtu jotee nga dem moo xam médecine ngay def ak yu loo loo yëngu ci concours rek nga ñëw ñu defal la li lay defal dem nga dem nga def def yi ngay def concours ba jeexee ba pare nañu bu ñu doon jël fukk wala vingt moom faaw da nga bokk. da ci bokk waaw incha allah loolu ñu ngi koy liggéey muy lu leer nañ lu wér. waaw te waajur yooyu daan def ñu ngi koy. def mm. euh, bi neex na lool mais li nga fi détaillé moom mat na sëkk macha allah boo am looy dolli rek xanaa nu fàttali numéro bi su ko defee nag ku bëgg ñëw moo wala si mooy numéro bii sax dana défilé numéro bii nekk si écran bi rek la waaw. waaw li ñu si yi mooy ba tey itam ci wàllu jàngoro yaram yi rek. waaw ndoxam siti ay loolu yéeme laa ciy def ndax man xam nga garab da nga koy xam. Uh-huh. da léegi gis nga jox nit naan dama amoon siti wala amoon émeri wala naa am ko ma ci defal traitement waaye dara. Hmm. garab jën da nga ko xam bu baax baax te bëri na ci doxu siti yi may joxe camp yeeg yooyu dafa ànd ak baatin nekkul ay bant kese laa la jox déedéet dama la jox camp yi boole ko baatin bi muy àndal saafara bi muy àndal nga koy naan ay traitement lay doon lépp luy ndoxu siti sa yaram hmm? ak kuli day dañ ci yow ndax kuli mooy jur ndoxu siti lépp day dañ ci ba ci ba ci ba ci feebar bi ñu wax euh, euh, rek néew kàttan yëpp ah, ndax loolu loolu néew kàttan ak euh, yooyu mm. cité koy joxe cité bu yàggee sa yaram mooy dem mooy dem ba dafa la néew kàttan yooyu yëpp dañ koy dañ koy dañ koy dem du ma la jox ay ñetti bant ak ñeenti dama lay jox camp yoo xam ni day ànd ak baatin bi muy traitement nga koy jëfandikoo. Mm-hmm. te même pas un mois un mois laa lay may bu ma joxee càmp càmp yi nga koy jëfandikoo. un mois un bu nekkee sa yaram day dañ bu dee ay ballonnement kii. hépatation yooyu yëpp day dañ ci yow ba mu set wécc feebar bu mu mën a am jàngoro fii nii ni ma lay waxalaale ma la ci dolli jàngoro bu mu mën a doon rek bu mu mën a doon rek ko bu ko nit boo ñëwee ñu jox la yi ñu lay jox traitement yi bu ànd ak bi nga koy jëfandikoo mois nga tàggoog jàngoro hémorroïde aussi ah ak feebar bu mën a doon gars yi dañ fay sonal feebar bu mën a doon hémorroïde bi hémorroïde yeeg koy jàmbal rek néew kàttan néew kàttan nag yëpp jàngoro yooyu yëpp. Ah, boobu moom sonal nañ ñu dañ lay jox dañ lay jox dañ lay jox liñ lay jox rek dañ la wan lay sunguf ak dañ lay jox liñ lay jox traitement yu leer nañ waaw na la demal nga dam jëfandikoo balaa mat weer traitement yi bu ñu la koy jox rek léppay dañ. macha allah saafara yëppay saafara. très bien waaw dootoo yëkkati dara ci sa yaram incha allah ci kàttanu yàlla loolu ñu ngi koy liggéey mooy lu leer nag yi ñuy liggéey yëpp mooy lu leer lu wóor lu wér ñu ngi sant suñu borom bu baax kay mhm. ah, ak maam yi ñuy meññeek suñuy waajur yi nga xam ne bàyyi nañu ko li ñu yor itam muy xam-xam boo xam ne ñu a jànge fa war a jàngee xam la war a xam xëy na dañ naan nit ñi dañ léeg dañu xam dañu kiñ xam lañ xam waaye ki ki mën xamuñu ko waaw moom ñun sant nañ li li ñu yoree bari nag gëstu nañ dem nañ fu nekk mhm. jàng nañu yor yor xam-xam bi mi ngi fi képp koo xamante ni suñ borom nam nga say mbir jag itam boo ñu contacter boo ñëwee ñu ñaanal la say mbir yëpp dox ubbeeku ci lu gaaw nag lépp laay liggéey comme ni ma ko leeralee ci émission bi rek kon xam naa sëñ bi mm. tàggoo rek mm. jéem a laal ma la may na ko lool tubaarkàlla macha allah li mu fi wax lépp dégg ngeen ko je pense que nag da ngeen jël numéro bi contacter ko mën fi ñëw mu faj seen aajo waaw baax na incha allah ñu ngi noonu daal comme ni nga ko waxee rek Abacar comme ni nga ko waxee dafa tabaarakallaahu lépp a ngi fi lépp lu waaye di teew loo soxla lu mu mën a doon rek ci jamono ji ñu toll nii lépp lu mu mën a doon rek lépp mi ngi fi rek ci mbirum baatin ñëw ñi dafa lay ñaan dafa lay sangat nga gis sa bopp bu baax lépp mi ngi fi fa tabaarakallaahu euh, ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax euh, julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant euh, ci njaboot gi ma bokk njabootu démb bu na ma maxtaar pend si sëñ Mor Xaris ak sëñ Malick Bassine si te am naa fi ma waroon a njëkkee sax di ñaanal xalifa yi di ñaanal xalifa général kullu murid Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko te kàttanal ko ba naal yi mu somb yëpp mu mën koo liggéey maam gu tedd ga Cheikhul Khadim ñi bokk fekkee lépp ak taalibe yëpp noonu lañ koy ñaanalee itam mbokkam ma ca Tiwaawan sëriñ si Sy Mansour moom suñu borom bi yàggal ko fi lool mooy ko wér ak kàttan ba naal yim liñ somb liggéeyal maam ji tedd Cheikh Sidi Aji Mari si mu yeggale ko taalib yëpp fekk ko julli yëpp fekk ñëpp fekk ko loolu itam buñ koy buñ leen nuyoo ñoom ñaar ñooñu nuyoo boobu jël nañ ko teg ko seen loxo ñoom ñaar ñooñu Cheikh Mamadou Mountakha suñu ko ñu jàllale ko ci kër yi diine yëpp xalifa généraux yëpp ñëpp yàgg fi ànd ak wér ñu ngi ñaanal Sénégal gépp ñaanal Sénégal yàlla def fi jàmm yaatu yaatu président bu bees bi di basiiru jumaa yi suñu borom bi may ko wér ak kàttan te yan bi woyof lool fépp fu mu bëggee yóbbu Sénégal ci naataange ak tawféex yàlla nag ko yàlla defal bu baax a baax a baax ñu ko koy ñaanal yàlla yàlla nag ko yàlla defal ci barke alxuraan barke yeneen bi Sénégal suñu borom def fi jàmm def jàmm at def jàmm ci àddina bépp fa tabaarakallaahu wa zaalika alallaahi bi asiisin asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu